waaw asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax alors euh, maa ngi yëkkatu suma kàddu yi ci suba bi pour dellusiwaat ci li xew démb ci conférence de presse bu Yewwi Askan bi ndax euh, am nay kàddu yu ma fa yëkkati euh, jëmale woon ko ci président Macky Sall président de l'APR mu nekkoon kàddu yoo xam ne romb na wax dëgg yàlla fi ñu ko bëggoon a yemale euh, ñu bëggoon a tey wax ni euh, un patriote bu defee erreur ci li ma jàpp euh, nitu ku ku ko ku am diine ku ñu yar ci diine bu defee njuumte da koy nangu wax dëgg yàlla njuumte la de notre part parce que dépassé na moo tax ma bëggoon yëkkati ay kaddu jëmale ko ci Macky Sall président APR mais jëmale ko également ci Sénégalais yi nga xam ne ñoo ñu déglu démb te li ñu wax euh, naqari leen lool ba jot nañ ci information yu bare bare bare euh, donc mu nekkoon kàddu yi nga xam moom lañu bëggoon yëkkati ngir jégalu ci bu baax a baax a baax donc euh, je voudrais euh, personnellement biram Souleye Diop revenir sur la une séquence qui s'est passée hier lors du point de presse de nous avons euh, eu des propos à l'endroit de Macky Sall, président de la PR, qui ont dépassé nos intentions. En tant que patriote, en tant que simple croyant, euh, quand nous commettons euh, une erreur à l'endroit d'une personne, je pense que le mieux indiqué est de l'accepter et de présenter des excuses. Voilà pourquoi je lui présente humblement mes excuses. Mais également, je présente ces excuses-là à tous les Sénégalais, à tous ceux-là qui nous ont écrit, qui nous ont appelés, pour nous dire vraiment que nos propos, euh, pour cette fois, ont dépassé euh, ce que nous devions en faire. C'est la raison pour laquelle nous échangeons avec vous pour dire dire euh, ces propos ont été au-delà de nos intentions. Donc ce sont les excuses que nous voulons vous présenter. Et euh, voilà, j'espère, j'espère avoir votre compréhension à tous. Merci.